cas critique cay li doyati na war Ousmane Sonko bis bu yàlla sàkk rek ak xibaar ba ñuy génne ci moom 94 Walf Sénégal dellu si na di leen char di chare mboolem ki toppal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam da leen ko defal saa su nekk ci réew ak bitim réew jaajëfal nañ leen char na leen wooy leen di toppal fal Walf Sénégal cas critique cas bu doy waar maanaam nag lii dégg nañ ñëpp di wax ci moom rek Ousmane Sonko kan mbir yi dafa gën a doy waar ci moom ndax niñ ko sukkandikoo ci El Ndiaye lu mu partagé gaa yi gis ko moom foofu la ñuy sukkandiku ci El Malick Ndiaye ndax daanaka mën naa lu jóge ci moom rek ci moom lay jaar bu ma bu ma juumul ndax bari na ñoo xam ne ni foofu lañuy sukkandiku ci moom voilà kon daal mbir yi moom fi mu toll nii ñun liñ ciy indi ci suñu xalaat ci suñuy analyse mooy nit ku nekk nañ ko jox àqam ak fam chaque jour ñu wax ko bis bu yàlla sàkk nit ku nekk dafa am àqam ak yellefam li mu soxla nañ ko koy jox ndax loolu la soxla li soxla soxlawut nañ ko ko bàyyil fële soxlawu ko loolu tamit mooy nit ki dëgg nga jox ko euh, euh, respect nit ku dëgg mooy nga jox ko dignité am mu xam ne yow mii kat wax dëgg yàlla respecté ngo ko takkat kat àdduna de ab bul la boo xam day tourné rek wax nañ ko waxati ko àdduna chaque jour bind bu tooy la. chaque jour nga am ci njàng mu bees voilà chaque jour da nga cee war a jàngate lu bees bis bu yàlla sàkk bis bu nekk te bul la rek waaw adduna euh, moom suñ borom moo yor jamonom nu ko neex la koy doxalee wala waaw ñu baree bari nag te dañuy wax ni maanaam yërmande dafa am solo voilà comme ñoom dañoo nekk ci ay problème problème mënut a ñàkk yàlla na yàlla teggil leen ko teggil ko mbooleem koo xam ne rek yaa ngi ci problème yooyu ndax ñu ni neen lañ yaakaar naa ne réew mi moom dañ koy wax di ko waxaat chaque jour ndax wax waxaat yàqu dara mooy maanaam faaw ñu bokk nday bokk bàyyi di xàccandoo di doorandoo loolu mooy tax réew mi mën a avancé waaye torturer jàpp indi problème loolu nekk na loo xam ne lu metti la kenn ku nekk da nga koy xool ci sa bopp rek bula la daloon da ngay bëgg euh, la nga soxla ñu di ko jox ak di ko defal. kenn ku nekk xool ko sa bopp te dara jaasul dara tamit weesoogul voilà ndax suñ borom moom waxoon naa ko yéemul dara xeebul dara voilà ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax Fall 94 Walf Sénégal lii la leen indil.